jërë jëf ah, mbokki internet RTV Dakar ah, yéen ñiy suivre actualité sport fii ki suñu chaîne bi jógi leen di jaajëfal bu baax a baax di wax ngeen wéy di continuer di abonné euh, tey nag information bi dañ koy ñëw ci Sénégal bi nga xam ne doon na par rapport ak ah, coupe du monde bi Sénégal Équateur gis ngeen Sénégal démb mu doon Équateur ñaari bal ci benn ki nga xam ne moo dugal première bit bi nekk Ismaïla Sarr ki marqué deuxième bit bi di Kalidou Koulibaly ki deuxième mi-temps bi Ah, mu nekk match boo xam ne métti war na doon yóbbu qualification à huitième de a ah, gis ngeen Sénégal démb Aliou Cissé équipe bi nga xam ni moom la a ah, ku ci mel ni Pape Alassane gi Pathé Ciss ak ki nga xamante ni moom mooy sa Gana Gueye ci milieu terrain bi ah mu nekk ñoo nga xamante ne wane nañ bu baax a baax a baax ci jongante bi dox nañ nga xam ne se moom mooy wane nañ ah, beneen kanam par rapport ak ah, match bi Samuel Eto'o di xam le ni Angleterre ah, nekkul benn champion ki nga xam ne moom mooy Sénégal mën nañ ne moom mooy champion parce que Sénégal am na benn course boo nga xamante ne naam nekkoon na capitaine doon participer ci équipe nationale bu Sénégal 2002 moment ki a xam def très attention mën gagné ki nga xam ne moom mooy xam ah, ki nga ah, ne bu que ben leader ci équipe bi à ah, match prochain bi capitaine équipe nationale bu Sénégal. mbokk yi loolu moo nekkoon information bi di waa kale ki nga xamante ne moom mooy kàddu yi kii Samuel Eto'o yëkkati teg ko ci nga xam mooy équipe bu national Sénégal am ferte ki Afrique wax ni Afrique mën na jël coupe rawatina ki nga xamante ne moom mooy Sénégal nga mbokk yi loolu moo nekkoon ngeen di bàyyi ngeen di wéy di partager di like te ngeen def commentaire ci ki nga xam ne mooy Samuel Eto'o fii sa Nouveau bim am par rapport à l'Afrique gëm-gëm bi lan moom moo ci ngeen quatrième édition avec le géant du live Mohammed sekmelo Melo bu Serigne Moustapha Sy. salam salaamaaleykum Seck Melo nag moo woote fii ci Grand Théâtre ci kàttanu yalla baxam le. neuf le neuf. inchallah allahu rabbi man du maa ngi ci bir le 9 décembre. kan mo xewle Seck Melo Seck Melo borom yëmbal fan la koy defé Grand Théâtre le 9 décembre. Sek Melo. sama xarit sama doomu ndey moo ma jàngal moom la moom la moo ma tette seen muro glacial ànd seen village bi diwit maa ngi glacial gi jël sa bic bindal date bi le 9 décembre ka ma woote grand théâtre ñu ne Seck Melo entre junni la ak dix mille francs teel la ñëw boo yeexe du am place te bëgguma bis bi kenn nettali la entrée cinq mille VIP ten taw pour nante Ça sera le vendredi 9 décembre au Grand Théâtre National d'Oudoundiaï Kumboros. Cette édition est dédiée à Mam Cher Al Maktoum à l'image du capitaine. Sekimelo, Wach.